ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides kilifteefu sëriñ Basiru Mbàkke Anta Ñang xalif maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal Daaru Muxti ci ndigalul El Hadji maam Cerno xalif sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke mborom yaaqa faru sëriñ Cerno Mbàkke ibnu El Hadji maam Cerno ca Touba Pekes di ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru janvier 2023 waaye ajjuma tombe ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru janvier te takkusaan te la ñu fas teertu El ma ko teral ko dalal ko dal di fanaane nag ngontu mam cheikh ibrahima fall babul muridina and ko nak ak wa keur serigne sadekh kan bi ci defal ay ñaan nak serigne sadekh kan rahmatullahi alayhi buñu xeyet dañuy yendo jang alquranul karim xasida istighfar ak salatu ala nabi 14 heures julli bernde takusan ga dina am waxtanu dine guddi ga serigne mara sek serigne cierno sambu serigne dam jaañ ñoo fanane bañu noddu fajar serigne bi sant mbolo mi soñu len ñaanal len yëfi len serigne cierno ibnu elaji mam cierno mbàkke touba pekes di yegal nak ñim bokal mbokkal rasul bolem ñim bokal mam cierno ibrahima fati mbàkke ñi bokal cheikh awa balla mbàkke borom ya xafaaru sunóob cheikh yi aju ci keur serigne touba rawati keur mam cerno ibrahim faati mbàkke rawati keur serigne cheikh awa balla mbàkke bokki jullit yi ak bokki taalibé yi kilifa diina yi ak kilifay aada yi rawati nak njabootug serigne cheikh awa balla mbàkke ak ñam bokkal aladji mam cerno mbàkke mum serigne cheikh awa balla mbàkke taalibé yi ci réew mi ak bitim rew région de Louga département Tivaouane commune de Pekes ak mbolem village yi badaru marnan wa département de Kébémer wa sagata ak wa daru mukti bokki touba ak mbàkke wa réew mi ak wa bitim rew serigne cerno mbàkke ibnu elaaji mam cerno mbàkke ca touba Pekes di leen yëgal gàmmo gañu baxo at mu jot foofe ca touba Touba Pekes samedi ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru janvier 2023 di ñaan ku teew ci bis ba làq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo barke xaadimu rasuul alaaji maam Cerno Mbàkke foo ko gis mu ngi buur ngir sàmm diine ak taalibe boole ca fiir alaaji maam Cerno Mbàkke yoonu njub ca la jaar bàyyam ba Seex Awa Balla moo fi daa gindi réer maam Cerno maam Cerno Faati maam jaman ku di góor jël na ku béer maam Cerno xëy wuutu bàyyam roy ca maam jëdi jéer sàmm ak diine ak taalibe bañ ku ko ruur alaaji maam Cerno taxawaayam bi jekk na kaar fonk na ay kilifaam wuuf na njaboot ga Cerno mu maam Cerno yow miy woote gàmmu Kajoor yal na nga wér gudd fan am barke ndog du la gaar bis bi nga woote damay ñaan sa borom ko fa jaar laqi ngërëm am pajug aajo ñu far sa bakkaar la qualité fait différence